li ci yéenekaay yi ak Abdoulaye Bob dalli nag jàmm yéenekaay yu bari xëyandoo tey Ousmane Sonko ci wàllu suite boote jolletina yéenekaay bi di ñu xamal ne Ousmane Sonko moomule dina wuy ji dina jàkkaarloog juge bi alxamis gi ñu jëm Walf Quotidien ba tax na gendarmerie ak police ci jamono ji ñoom jóg nañu taxaw kenn ku nekk waajal na ko bu ñu sukkandikoo ci Walf Quotidien yéenekaay bi xëy ñu ko leeralal ne bokk na ci tamit ay jegeñaale Ousmane Sonko jóg nañu taxaw yéenekaay bi bu dee takk der yi ñoom amatul kenn ku ñu may euh, permission ci jamono ji bépp permission ga cay tukkee euh, moom la ñu euh, dakkal lépp ngir mun a saytu dossier Ousmane Sonko na mu gën a yaatoo mu ngi ci Walf Quotidien yéen a kaabi di bés bi le ne état d'alerte gàngoog gars yi kenn ku nekk la ne na faggu ca fa nga nekk moo xam takk der nga bokk na ci tamit àllarba ji ñu jëm kenn ku nekk di dina taxaw fa mu war a taxaw saytu alalu askan week seen juge bi bu fekkee ne dëggal na renvoi en jugement Ousmane Sonko mun na dem sous mandat de dépôt yéen a kaabi xëy ñu ko leeralal lu aju ci nemmeeku tour gamuy amal ca département bu Mbour deret tour na ca foofee ca Cikki yéen a kaabi ne am ñu ca jëlee gaañu gaañu yu métti métti gannaaw buñ fa fësalee eh, turu Adji Sarr ba tax na jege ñaale Ousmane Sonko jota jàmmarloog ñenn ci askan wa fa yeewoo foofee eh, ca eh, Cikki yéen a kaabi di bés bi le jour moo ñu ko yeggee ci xëtam bu njëkk a quotidien mel ni kuy alerte eh, code euh, Oscar euh, Serra yéen cabinet Sonko moom lu moom la war a déglu filek ay waxtu filek ay fan àllarba euh, lépp dina yemb alxamis ñu fas yéene ko teewlu ci lu xóot ci googule dossier ba tax na police moom taxaw na tembe ngir saytu askan wi aar leen ci seen moomel ak seen nekkin yéen cabinet ay ñooñu Ousmane Sonko ba léegi jotaguñu kayit guy wane ne Ousmane Sonko war naa dem wuy ji yéen cabinet askan wi war nañu xam ne nguur gi daan daanaka def leen a bëgg gëlëmal ci ci wàll ñeent fukki euh, milliards yoo xamante ne jëndee nañ ko ay ngànnaay yàggut euh, ñeent fukki milliards ak euh, juróom te ñu tudd ca Abdou Karim Sall ak Abdoulaye Daouda Diallo alerte quotidien moo ñu ko yëggee turbine police ak gendarmerie ña nga en état d'alerte taxaw nañu ngir waajal déglu Ousmane Sonko ci alxamis gi ñu jëm yéen cabinet bu ñu deful ndànk mun nañoon soobu ci ab procès en correctionnel fukki avocat ak ñaar ñoo fas yéene Euh, Sonko critique ne eh, bokk na ci ay jege ñalem taxaw nañu tembe ngir itamit taxawu maire bu Ziguinchor Ousmane Sonko ma ñu war a déglu eh, ci lu xóot ci dossier digganteem ak Adji Sarr yéen cabinet nag eh, fitna am na ca ci kii fala Ousmane Sonko ne woon ak ay ñoñam Mamadou njon joxoñ baaraamu tuuma Ousmane Sonko ak nervi yamu ne moom la àndal ñoom ñoo song askan wa gannaaw bu ñu fësale turub Adji Sarr ngir sàkku déglu am ci googu lépp dossier yéen cabinet di les école leer na nañ Sonko dañ koo déglu alxamis gi ñu jëm ñetti fan ci weeru novembre ba tax na kaaraange gi lépp jàppandina ci jamono ji Adji Sarr moom ak itamit euh, turam gañu ne yéen a fitna foofee ca ci kii ba am ñu ca jëlee gañu gaañu gannaaw bu fa Ousmane Sonko jaare ci ne meeku tuur lañ fa fësal turu Adji Sarr yëf ya jur fa fitna am ñu ca jëlee euh, gaañu gaañu l'info ne euh, message ga gars yi décodé nañ ko bokk na ci lañ ca laqoon ci kodu Oscar Syria yéen cabinet ñëpp xam nañ Ousmane Sonko la ñu waxal waa Pastef ne dootuñu euh, laam-laame li ni mel dootuñu yox-yoxi dañu taxaw euh, tembe ngir taxaw Ousmane euh, Sonko ne seen kàngam wala boog seen leader kenn du ko xooxatal rawatina ci dossier Adji Sarr Ousmane Sonko aji Sarr ak Ndeye Khady Ndiaye mi moom Sweet Beauté kenn ku ne ci ñoom yàkkamte na procès am waaye nag yoon yàkkamtewul ma ngay saytu yile dossier yene kaabi di Sud Quotidien xëy duñu saytul beneen dossier mandat mi ne ne John kon professeur Mamadou Diouf ne Macky Sall xëy na eh, xelam xalaatul mu daganaat baatu askan wi waru ko jëm benn yoon yoon mayu ko eh, mu eh, laajaat réew mi ci élection présidentielle yu 2024 ndax carte yi leer nañu gannaaw bu ñu jógee ci élection législative yi ñu jógee ak itamit njurée fia ca tukkee ba tax na ci troisième mandat na ko njiitu réew Sall teg ci suuf ci waxtu wile doon càkkuteefu professeur Mamadou Diouf yéen ak bi di la dépêche républicaine ne ay ñooñu Cheikh Omar Anne Cheikh Omar Anne ci boppam euh, fippu na ci kaw euh, société civile mi ñu ne wax dong moo leen dese la ñu wax ci coal euh, troisième mandat dafa yenuwul maana Cheikh Omar Anne moo ni waxee yéen kabi di le jour le vrai journal wax na ci réew mi quotidien wax itamit ci Abdoul mbay mi artu askanu Sénégal ngelawaay def leen tànneef bi gën ndax réew kenn du ko caaxaane bokk na ci ne njàngat gu yaatu la askan wi war a jëlee ci élection législative 2022 lu ëpp juróomi million ci ay sénégalais yoo xam nante ne demuñu wote ji loole nag misaal la goo xamante ne ñu bari mun nañ cee jàngee lu bëree bëri Walf Quotidien xëy ñu jàngatal ab tiwo Touba Gaz ma jaar ci ab tiwo euh, bu la bu Maam Jaara euh, yéen cabinet loole mun na jur musiba say su ne ci mim réew ba tax na Alioune Lo njiital la bu Maam Jaara ma ngay artu kilifa yi rawatina waa Touba Gaz ngir ñu jël matuwaay ya ca war ndax fañ ko jaarale seen tiwo goge moo jaarul euh, ci yoon le vrai journal xëy ñu dégtal code des marchés gannaaw coppite ya ñu amal amal ko sax ñaari yoon atum 2014 ak 2022 Birame Seck jàpp ne daanaka lépp dañ ci yoonal ngir fexe ba euh, dooleel euh, ay entreprise yu bari ci wàllu koom code de marché publics euh, tur bee fi des waaye nag saytu gàcce war ak liggéey gañ ko sasoon ba nag daanaka matalagu ko yéen kaabi di libération mu ngi ñu dégtal douane jot na matal liggéey bu yaatu ca Kidira yenn cabinet fa la ñu tege ab camion malien goo xamante ne yeboon na lu toll ci ñetti téeméeri kilogramme cocaïne buñ ko xaymaa ci suñu xaalis toll toll na ci ñaar fukki milliards ak ñeent yéen du ñu dégtal festival gi Dakar war a daloo di Jeux olympiques yu 2026 euh, gi club gàccooy euh, saytu comité d'organisation bi am ci euh, gan goo xamante ne jot na nemmeeku ne Sénégal daanaka waajal na yooyu les Jeux olympiques ndax ci wàllu jumtukaay lépp yemb na ci wàllu tàggat yaram bokk na ci jumtukaay yi ñeel wàllu transport jàppandi na yéen kabi di mi Macky Sall jot na leen ca dalal démb yéen stade xëy dalal suñu attaque bi ñu bari bëri amoon ci euh, daanaka ji jaaxa waaye nag bi la yoon am nañu attaque euh, sénégalaise gu am doole lool ci jamono ji gu ne ci forme ngir waajal euh, mondial 2022 ca Qatar yéen cabinet suñu gaynde jël Coupe d'Afrique beach soccer dellu soit nañu teeru nañ leen jaajëfal leen sargal leen njiitu réew Macky Sall leen dalal ca Palais ba yéen cabinet di direct news ne ci waxtu joo xamante ne footballu Sénégal mu ngi dox waaye nag demeewu ni ndax fédération sénégalaise bu football ne moom la am ci jamono ji góobe na ko ci euh, Coupe d'Afrique gi ñu euh, jóge wara a yóbbuwaat ay milliards ca Qatar 2022 ci jamono joo xamante ne suñu club yi ñu ngi ci misère ñu ngi ci tumuranke gu métte métti jumtukaay amuñu ko koppar amuñu ko Euh, dañ leen di euh, bàyyi ak euh, seen i jafe-jafe direct news moo ñu ko yeggee yéen kaa bi di suñu lamb ne combat Siteu Papa Sow ku ci defu ndànk doo ko seetaan ndax combat ga dañ ko amal ci diggante xippi ak xool yéen kaabi ne combat ga fa lay jeexee bu ñu sukkandikoo ci Siteu mi rongo ñam laal suuf démb gannaaw bu mu jàkkaarloo ak ay fansam bokk na ci ne dina def kéemtalaay kattan ngir daan Papa Sow jël gu set wecc ci googule combat yem fu ñu jeexalee xeetu yéen kaay faram fàcceel na mu gën a yaatoo eh, ci xibaaru digg bëccëg indi leen garab gu yéeme yéeme di faj juróom-ñaar fukki jàngoro 70 maladies ah, loolee tax mu dippee ko sifaahu jooni jooni Cheikh Ousmane Touré nee ni dina faj lii di tension hémorroïde interne externe estomac rhumatisme ballonnement muy biir boo xam ni fu mu toll di jooy ah, lii di kuli nag ak góor gu tëlee ulcère impuissance sexuelle fatiguement général nag moo ci man yéen ñi bëgg am adresse ki nga xam moo di Cheikh Ousmane Touré mën ngeen ko fekk fii 57 11 Sufa wu joni joni daal mooy mos dolli.